aquele. boogal bëriwul. eh dugal ko foofu comme. c'est pour le nom Mororo mu daal yow yaay gardien kan. université. Ah, bu université. Ah. Bambey waaw ah, d'accord. yeggal yeggal ci puloo bi yeggal ci puloo bi toog voilà aju voilà toog booy dama ko jox ca 走。 am un mouvement de coordination au niveau. des Bras, am branches surtout voilà. tu hein? jóg carrément tu la ñuy voilà balance balance carrément les bras balance. yëkkati yëkkati sa tànk yëkkati waa waa Sen TV wala waa deux wala waa RTS. <laughs> waa Bambey TV. ah Bambey TV oui sa kaw sa kanam kon ajo xoolal. slalom la ñuy def fii nii slalom. ok. yow yaay coach kan. si jàkk. moo yàgg na bu naaj boobu yàgg. Alors, moom la un ah. peu de présentation coach. ah c'est coach kan. coach Diak. ah d'accord Mon nga ñu wax lan ngay def préparation finale donc on est en train de faire une préparation pour la parce qu'on est à 48 heures de match. Mhm. donc c'est une préparation pour nga maintenir. tout ce qui est chargé. éviter. donc on est en train de travailler la vitesse donc pour un peu faciliter peut-être son déplacements à bon donc ñu bañ a sentir trop de lourdeur quoi voilà donc c'est ça Gracias. répétitions, hein. Eh? On a que 27, 4 répétitions. alaikum. coach man nga présenté wu. monsieur Ndiaye c'est Tunkara. ah de l'IADB. ah d'accord. donc yow mom tay kon lan mo la indi ci entraînement euh, comme on prépare benn finale. Mhm. donc il faut que ñu ñu boy malheureusement parce que l'effectif n'est pas au complet. bon le peu d'éléments qu'on a eu on va essayer de gérer avec. ah donc yéen tamit da ngeen di. préparer finale on est qualifié maintenant pour la finale. ah d'accord on va en catégorie junior. d'accord c'est bien ok. waaw c' est sûr genre report la. imprévu yi nga warul woon xel it ay ah, ñoom naar yooyu. non naar sax dinañ ko xel mais fii amul ku ñu warul xel it nag dootu ma ci ay naar ak naar. ñoom xaw ma koy tëb ngeen naar rek. xanaa selbe. ngeen naar rek. non non yow. ah Côte si Diak man lañ war a tëb. non non damaa jum euh, kii laa wax nu mu tuddati sax ah. non fii daal vraiment. Eh, mbay kenn du ko def xanaa mbay gi gitu. non mbay ñangi non grand gitu. oh, man bu ma jël hmm. kon grand yow yaay kan man maay maaram bu course lan course des gardiens gitu. uh. Jël ko jël ko fi mo jaay jël bi ku ci nekk dese na ko benn station. benn station ñii ñoom xam nga soo passé par. fële lañ commencé par l'atelier de changement de vitesse la. ok. fee lañ démarré donc send waan bi kii dem fee kii ñëw. wala ma benn def benn reportage ci seen entraînement. ah ok d'accord. yaay ah? Ah, yore junior la. Ah, donc nga ko wu. man maay entraîneur l'équipe junior de l'AS Bambey mais actuellement je prends les gardiens par rapport à la finale. 好，开始走。

Ousmane wàccal monsieur wàccal watch carrément wàccal voilà it. allez on descend. kaa dañuy wàcc watch it? ok donc yow la kan. oui Mouhamadou Lamine Bardé descente numéro 16 surnom Bëgg Fall. waaw ah. gardien titulaire ASC Bambey football club. jaajëfatee jaajëfatee. yow la kan yow. Meysa Fall. ah d' yow it ci gardien yi nga bokk. waaw ah, man maa ngi si chance ci finale bi. Acha Acha Acha. Allez-y, 4 groupes, 4 groupes, 4 groupes. Il y a 3 groupes de 5 ak 4 groupes de 4. Est-ce que ñoom motuñu ah boobu benn groupe de 4 ak 3 groupes de 5 3 groupes de 5 benn groupe de 4. Acha Acha, c'est lent, c'est lent gars. benn bi dem fële. parce que ordinaire la surtout as. loolu ma suuf léegi dama lay lakk war a gaañu gaañu bëri. loolu surtout as. xel ba. moo tax bu demee bu ñëwee day gaaw na. sprint carrément c'est un bloc. Thank you. Biraay we Biraay Biraay we bu ci dugal ak moo rek eh.

carrément carrément on bloque on bloque on, on sort carrément le pied Gaï, on sort le pied carrément maîtrisez les appuis là voilà. చెప్పులే ఒకరోజు ఎక్కాను మా ఐదేళ్ళు Dai, fila récupération elle est complète. Idelo, on y va calmement. Yeni çok iyi. Ne diyorum? Ben niye sizlere ne diyorum? Sen inşallah. ci stade municipal bu Bambey euh, teew ak nga xam ne moom moo di euh, Léopold Médar di entraîneur bu ASC Bambey ASC buñ ko waxee suñu xel day dem ci fan final bi nga xam ne dañ koy jëmee dañ koy waajee fi nga xam ne moom moo di Diourbel muy lundi le 10 mu nekk final boo xam ne final régional la buñ ci gagné mën a fubal barrage buñ ci buñ jëmee ci barrage yooyu a fubal li nga xam ne moom moo di national bi euh, bourse nuyu nañ waaw fay nañ Sonko wala fi fi mu nekk nii moom comme ni nga ko gisee bon euh, joueurs yi euh, ñoom moom ci dal lañ koy préparé final la match la comme yeneen match yi ñu jot a joué bon li mooy gërëm yàlla may tamit ndam euh, ci équipe yi ñu yëpp. moom bi nga xam ne foofu moom ndam ndam dikkul bon football nañu juróom-ñetti juróom ñetti match waaw gagné juróom benn bi ñaari match yi lañu ñun université ak li la xale yi daal jàmbaar lañu ren moom au moins def nañ ci jom boo xoolee euh, six match yi ngeen gagné yëpp Diourbel la ngeen ko war faa football final foog naa ne xale yi adapté wu nañ ngir football Diourbel waaw xam nga mooy li rek ñun sunu sunu terrain bi ci bopp moo xaw moo xaw métti parce que suuf si dèjà dafa bëri gis nga ñi ko ñi ci yokk suuf dafa fekk nawetaani la woon loolu muy daaw boo ñëwee nga nawetaani quand même parce que def nañ ci joué amul benn benn boo xam ne gàllankoor na seen liggéey mais nag ak noor bi nii gis nga dèjà suuf si woowu dafa jël lu bëri gis nga soo gisee équipe bi fii pratiquement football football football moom mënu ko def fii ndax suuf ndax suuf su bëri je xale yi quand même war nañ ko loo xam ne bon may nañu yaakaar. instant bi ngeen nekkoon ñu nekkoon ci koor 15 jours a ngi presque suba loolu est-ce que entraînement bi waroon na am xale yi mën a jowante ak ay xeet yi nga xam ne moom war nañu muy moom jëm. waaw mais foofu moom dañuy gërëm staff staff administratif ñoom quand même ñi nga xam ne gis nañu may. koy gërëm moom mi ñu abal euh, stade bi ñu mën fee entraîner guddi ñu tàllal projecteur yi loolu tamit tax na ko euh, xale yi mën entraîner ci condition yu yu yu baax parce que tamit di woo football ci ci naaj bi tàng je crois que loolu moom euh, du loo xam ne sax dañ koy digal nit ñi bon ñun ñuy prof de PS souvent ñun suñu cours gis nga heure yi ñuy tas doo gis mukk ñuy def cours EPS ci naaj bi tàng donc euh, fofu mom ñu ngi gërëm maire ak euh, administratif yi yi ko dox quand même ba nit ñi ci koor gi yëpp gis nga guddi lañu entraîner fi déjà so soo ñëwee guddi day fees dell fekk bam day tamit nit ñi ñew bon ñu bokk di entraîner ñu gis né changement bi wul ci équipe bi ren euh, Lascat ñu ngi am 8 match 0 défaite lan moy secret bi non mais mais na wala né bambe man dama ko mësa wax dama mësa né ni bambe ñun amul dara lo xamné dëkk ëppalé nañu bon tey naka Mabambey tamit du dëkku dëkku sport comme ay Rufisque niñ ko nekkee Kaolack ay Dakar fii nit ñi bon fra bon li li li li dañ doon suñu cat tamit mooy ñun suñu jour yëpp soo gisee ay ay étudiants la ñuy doon ay élèves yoo xam ne ku ci am bac rek dem nga donc chaque année gis nga dangay ngay defaraat bon ren moom am nañ benn groupe boo xam ne tamit bon. man li may wax mooy préparation bi daal peut-être moo moo def différence bi quoi départ def nañu hivernal mois de novembre bi ñëwee tamit léegi xaw na métti mais quand même na ci ñoom parce que koo ci gis rek pratiquement day jàmm mais li ñu leen di mooy loolu rek gis nga compétition soo ci nekkee su nekkee par exemple yow dafa am loo foog nga nangu sonn soo sonnul moom mënoo ko léegi nag gis nga booy yi ñoom ren moom. quand même euh, entraînement yi séddee nañ ci même si au départ bon ñoom ñu n'avaient pas compris mais fin bi gis nga léegi résultat yi gis nga fu ñu dem sonn ñu. képp ku wax résultat wax équipe wax supporter euh, ñaari fan des euh, ci li nga xam ne moo di final bi lan non supporter nañ jàpp rek bañ a bàyyi. waa que ni là aussi supporter foofu mën même Liverpool. gis nga ni ay supporters am <laughs> mooy ñoo koy dooleel. supporter su nekk si ginnaaw xale day demee ak ak ak boobu supporter su gisee su gestoo gis gis supporter kaw tribune di a keroog suñu match bi. waaye métti woon na pression bi bari gis nga mais supporter nekkoon ci ginaaw bi ñu bi ñu yëngatoo ci kaw tribune bi gis nga automatiquement xale yi dañu dañu fépp. en tout cas que ni Bambey toll nañ foo xam ne léegi war nañ mën lu ñu yóotu rek parce que technicien yaa ngi fii déjà xam nga a ngi fii euh, expérience baa ngi fi tamit. supporters yi ñu gis ne euh, moyen moo leen di yóbbu am na ñoo xam ne yàlla nañ ñu jàppale supporters yi ñu jàppale supporters yi parce que xam naa équipe mel ni moom tàmm nañu joué moom même nawetaan suñu daan tase moom dañuy gis que mobilisation la ñuy def mais Bambey il est grand temps lépp lu nit ki jàpp. wala ay taekwondo affaire yooyu yëpp mais nit ñi léegi jën a defar waat de fait képp koo xam ne doomu Bambey la nekk ci benn benn activité rek nit ñi nañ ko jàppale mu dem parce que ressources yaa ngi fii gis nga expertise baa ngi fi waaye kenn dañu jàppale. Bambey TV lan ngay moom. waaw Bambey TV moom que ni yokk di leen gërëm. waaw parce que yéen daal ak ni amuñu seen fay waaw parce que li ñuy def nii su ko nit ñi demee di yëpp di gis ak ni yéen la quoi waaw. yow soo soo woowee Moussa teg ko sabal tey. non woo ma wane ko ñëw ko non su ma bi damaa soxla. laaj ko laaj ko laaj ko. en français man si ça parle en français du parle. oui. Papa Ndiaye day dër fii daal Moussa day dër Papa Ndiaye dafay dër rek. Papa Ndiaye dafay dër rek te loolu la ñuy wax. non yow yaay lépp nga. yaay lépp waxal yaay lépp. grand frère. ñu ngi fii ba tey ci stade municipal bu Bambey di waajal final bi nga xam ne moom mooy dox ci diggante ay seen Bambey ay seen bi nag bi nekk Bambey mu nekk final régional ñu taxaw ak capitaine bu ay seen Bambey deux jours des ci bi kapi font la état de terrain bi toll ndax fi nekk nii confiant ngeen wala bon confiance moom waxatuñ ko sax Euh, je vais aussi tout d'abord commencer aussi par féliciter les gars qui engagement bi dévouement bi aussi depuis le début parce que ça a été difficile Mais ñuy commencé on peut dire que kenn gëmuloon ah ñu nekk fi entraînement yi metti donc ñëw ba exil final donc exploit pour l'instant. instant aussi voilà moo gën a mag mooy indi bi objectif que instant yi gars yi déterminé et on est très engagé

aussi ni nii nga xamné c'est déplorable quoi gars yi ñu koy wax depuis bambay je me dis que ni ak fi mu ci football euh, dépassé na niveau terrain yi ni <coughs> li fi nek ci qualité li fi nek ci boy yu football bala nga ko doon xam bala boy yi doon mëna exprimer potentiel bi nek ci ñom yépp terrain bii ñu defal ko parce que bokk na ci li ñuy freiné la logique bi gis ngeen ko deux matchs yi li ñu am yëpp fii lañ ko amee à Bambey à Diourbel dañ fay nekk dañuy football ba les habitants de Diourbel même ñoom ñoo jóg di ñu tàccu juste pour dire que état terrain Bambey bi bu ñu ko defaloon fii nii ñu am fi produit li ñu bëgg ci Bambey dañ koy am si bëgg fi ñu bëgg niveau footballu Bambey egg fa dañ fay yegg mais ça va commencer par ñu defaral ñu suñu terrain bii quoi tout d'abord loolu moom aussi je tiens à dire ça à que képp kuy autorité biir Bambey képp ku nekk biir Bambey euh, sport tax laa jóg defal Bambey tax laa jóg nga xam ne jeunes yi Bambey ndaw yi Bambey foot seen terrain bi lañ bëgg ñu defaral leen ko pour que fi ñu bëgg a yegg ci football ñu yegg fa ñu gis ne koor gi ngeen doon entraîner lu bari euh, do gis yoo xam ne ci biir koor gi la nan ngeen def ba euh, téyewaat seen bi nga xam ne yoroon ngeen ko ci début championnat ndax xam nañ ne koor ak du football day métti waaw bon loolu moom am na loolu aussi dañ ciy profité parce que nit bu defee lu baax da koy wax ko donc dañ ciy profité aussi ah, pour à ah, remercier le maire parce que moom moo ñu jox terrain bi à disposition ñuy entraîner les après bu ñu ndogoo ba pare donc loolu daal moom lañu amoon parce que ngoon gi lañ doon entraîner bi koor yi yëpp on s'entraînait vers vingt heures vingt heures à vingt trois heures booy xool. ñu jëm ci final ku wax final wax supporter lan ngay wax supporter yi ak ban appel ngay lancé autorités yi pour ñu jàppale supporter yi kenn ñaanu ko yàlla donc je me dis que ni bu gars di yëngal ci suuf comme ni ko gars di waxee supporters yi di yëngal ci kaw parce que loolu aussi bokk na ci yokk nit euh, la preuve da koy gis suñu match contre Ndaayaan bi ñu koy dóor 4-2 Ndaayaan daf ñu dugal mais nga gis gars yi ci kaw ni ñuy yëngale gars nga gis ci suuf ni ñuy leen di xabtale ñu football match bu extraordinaire te match bu ñu football keroog ñi nekkon ci kaw ñoo tax ñu football ko match bi ñu footballat contre Ndaayaan à djourbel ñi nekkon ci kaw ñoo tax ñu footballat match bu extraordinaire boobu donc appel bobu lañ lay lañuy indi indiwaat on va leur lancer un appel solennel à ce que ñu ñëwaat comme ni ñu teewe woon contre suñu deux matchs yi ak Ndaayaan yëpp ñu ñëw ko fénné a djourbel ñu door équipe bu Mbacké bi door yu metti dem match barrage gagné ko yéeg objectif bi dañ koy wax encore une fois yéeg la té dañuy yéeg dara duñu ko tey dernier mot ci Bambey TV bon di remercier en hein, Bambey TV aussi parce que yàgg ñu nekk BFC ñun ñii yëpp lii c'est une première fois mu mu am fi donc dañ leen di remercier ça va aussi permettre à ce que ñu mën di médiatiser li nga xam ne moom moo xew Bambey parce que dañ koy gis via YouTube ñu ngi gis seen euh, affaire yi ngeen di balancer yëpp donc nous cessons pas de vous remercier wax dëgg fa yàlla vous êtes en train d'abattre un travail solennel donc merci encore une fois merci à vous di remercier coach aussi comme ni ko booy waxee ak président bi aussi euh, ma Ablaye Fall di remercier gars yi ci jàpp yëpp ah ñëpp ñu ngi ci jàpp Bambey ak ñëpp ñu ci jàpp donc ñu ngi leen di remercier ñom ñepp di leen wax ne ñun ñoo bokk li ñu bëgg te inshallah allah dinañ ko yi le 10 inshallah allah. incha allah ok merci. Oke. wa wa xaar. Bara. wa wa bay Malick gi ni jëf waay. waaw. lo loolu nag lay jëlee برافو عليك اهلا بالي انت هو بالي باي روحو باي باي بالون بالون بالون بالو بالون يا خلاص يا ليلى لا لا لا لا لا لا Bezi yon, bon, bezi bon, Bezi, yon Kaye, kaye, kaye bon, Do a chizi, do a sal Chidi, chidi